fukkeelu at ak juróom ci nguurug tibeer la pons pilaat yilifoon diwaanu yude te erod yilifoon diwaanu galile anas ak kayif nekkoon sëriñ yu mag ya kàddug yàlla wàcc ci yax ya ca màndig ma mu daldi dugg àll bi wër dexuk yurdan di waare nii tuub leen seeni bàkkaar ba noppi ma sob leen cim ndox soppi leen dundin sori leen bàkkaar nañu leen sob cim ndox te yàlla bal leen seeni bàkkaar noonu la ñu ko binde ci téere bi indi waxu yonenti yàlla Isaaya baat dina jollee ca manding ma te naan xàll leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar xàll leen ay ñàllam te jubal leen bépp xur dinañu ko sëb bépp tund dinañu ko maasale yoon yi dëng nañu leen jubbanti te yoon yi ñagas nañu leen rataxal noonu bépp mbindeef dina gis mucc gi yàlla tëral. la ñu war a wax ñu ko. déglu leen ma yéen ñi fees ak dangar ni ko. looy nekk si ñun. wax ñu nan la war a def lu tax waxoo ñu dara. képp koo xam ne am nga ñaari mbubb na nga jox menn mi nit ki. amul menn te ku am ñam itam bokk ko ak ki amul kilifa gi nun juutikat yi lu nu war a def bu leen teg dara ci li ñu leen laaj loo ay soldaar ne ko ñun nag bu leen neewal doole kenn jël xaalisam ci kaw ay tëkku baa ngeen di seede loo xam ne du dëgg waaye doy law leen di ñu leen di fay wax nu ndax yow yaa yaay almasi bi maa ngi leen di soob ci ndox waaye keneen ku ma ëpp kattan dina ñëw te yeyowu tekki ay dàllam kooku dina leen soob ci xel mu sell mi ak ci safara dina jëri dàggaja ba mu set te pepp ma dina ko def ci am sàqam noonu xel mu sell mi daldi wàcc ci yéesu yor jëmmu petax te baat bu jóge asamaan jib naan yaa di sama doom ji ma bëgg am nga sama waaw ci lépp